def mbokki réew mi mbokki internet yi bàyyi xel MPROD yi le marabout milliardaire Serigne Abdoulaye Faye la ñu fekk si fii ci Almadi mu tabax fi kër goo xamante nii nee na li ma ci def rek valeur ay milliards la muy euh, kër gi nii sëriñ Abdoulaye fay tey gis nañ ku mel ne Cheikh Bara euh, Ndiaye euh, génn na fay na facture ndox 900000 Sénégal yu bëri nag maa ngi gis ñu koy posté di weddi ñii naan war naa mën a nekk danañ ci dugg tamit andi ci ay leeral ba tey ci audio yi. moom génn na andi ci ay leeral danañ ci danañ la ci laaj la moo ci sa xalaat bëgg naa tey combat Balla Gaye ak booy Niang nga andi ci ay leeral mais dégg naa tamit am na alal ju bëri joo génnee tabax ci daara joo xamante ni ak jumaa joo xamante ni imaam bi danañ ko bàyyi mu àndi ci li nga xamante ni moom mooy euh, kàddu seede yi mais laata loolu dañ lay bàyyi nga nuyoog askan wi ñu soog a xuus ci dëgg-dëgg waxtaan wi si Abdoulaye Faye ñoo ngi lay ziar. asalaamaaleykum maa ngi lay ziar di leen nuyu di leen baalu àq di nuyu waa Sénégal di nuyu waa Afrique di rafetlu déplacement bi nga xam ne ñëw ngeen déplacé ngeen ñëw si ma di ñaanal suñu Mountakha Mbacké yàlla na fi yàlla yàggal ko ci wér di ñaanal suñu xalifa général mi nga xam ne suñu mbay si mbam suur mi nga xam ni instant ni wax dëgg yàlla teewoo gàmm gi paase di ko ñaan gudd fan ak wér ak kilifa diine mooy bàyyi mooy kilifa yi nga xam ne ñaseen yeeg ak laayin yi ñoom ñëpp wax dëgg di la ñaanal ba si mbokk si yi di lay ñaanal jàmm ñoom parce que ñi ñoo bokk réew mi ñoo bokk Sénégal ah. mhm. si Ablaye Faye euh, mu mel ne euh, ku mel ne sëriñ bu mel ne yow nga xamante ni euh, multi milliardaire nga tey jël nga ay nit ñu bëree bëri def leen ay millionnaire ñi nga def leen ay milliardaire secret xaalis am na loolu la ci yàlla dénk mais tey waxtaan doo bëgg njëkkee ko ci gouvernement bu Sénégal gis nañ ne léegi suñu état bi surtout suñu assemblée bi ku neex waaye rek ñu dugal la fa. Coura Macky daf daan saaga. Coura Macky daf daan xaste tey gis nañ ne député la. nan nga jàngatee euh, politique gu Sénégal jamono ji dafa mel ne mbir mi euh, ku bëri bruit rek dañ lay ragal. waaw balaa comme ni mu ko waxee euh, xam nga léegi réew mi léegi dafa xaw a jaxasoo parce que tey wax dëgg yàlla kenn xàmmeetu ku baax ak ku bon parce que nit ñi ku nekk sa intérêt rek ngay doxalee. te àdduna boo doxelee jiitalee sa intérêt rek comme dëgg gi du du feeñ. parce que tey ki ñu war a jiite mooy fu mu mënta doon muy assemblée wala mu nekk président mu lu ma doon dañ ko war a saytu. xool ko ban jaar la. parce dëgg yàlla nit dafa baax ci nit koo xam ne moom parce kilifa. buy saaga wala di di wax yenn yi kooku motutul kilifa. te mënuñu jiite kon réew mi dafa baax bu ñuy jël nit ki nañ ko jox kuy am yar. ko am teggin ko am fulla ko am fayda koo xam ne am na kersa do kersa ko am na encore am na yërmande doomu aadama yi parce que ku ñu jot rek ni fal ko loolu moom wax dëgg yàlla rafetuwuma ko parce que nañ fekk ki nuy fal na fekk intérêt am intérêt euh, askan bi moo tax mu jug. Mm-hmm. Mm-hmm. Euh, tey euh, tamit bëgg naa ñu njëkkee waxtaan wi ci li nga xamante ni kàddu yi la imaam bi wax ko jëme ko ci sa jëmm ji muy daara ji nga xamante ni waaye jumaa ji nga xamante ni tabax nga ko waaye nag yi nga xamante ni jënd nga ko berndeele ko doomu aadama yi sëñ bi ñu seetaan vidéo yooyu te di dikkaat euh, yeggal li nga xamante ni mooy waxtaan wi itam yi fi bi bi nuyoo bi lislaam di asalaamualeykum wa rahmatullah ndax loolu baat boobu li mu ëmb mu def te mooy jàmm yal ko yàlla defal defal leen loolu nañu tàmbalee ko ci suma xarit suma soppe koo xam ne dañoo jàpp rek ngir lislaam muy sëñ Abdallahi mu baax nii sëñ Abdoulaye lii mu def nii duñ ñu guleet xëy na lii de door a fës rek maa ngi koy wax si jigéen ñi bi soxna si ñu ngi siyaare baax maa soxna ko maa soxna ko maa it yaakaar naa social ak jëf gënu ko rafet. Mm-hmm. waaw comme lu ma ko xam nga ñun ay taalibe seex lan mm-hmm. te wax dëgg yàlla ñaan naa yàlla euh, xëy na comme lu ma ko Aziz moo ko tàmbalee foofu. Uh-huh. xëy na ñun bu ñu commencé def ay ñaan yàggul. Mm-hmm. bu ñu yàlla commencé def ay teraanga yàggul. te Aziz wax dëgg yàlla gis naa ko def naa ko foofu. Uh-huh. waaw. maa ngi jéglu nag damay naan café maa ngi jéglu de maa ngi jéglu maa ngi jéglu bisimilah. naanal. maa ngi jéglu. yaa ngi dégg bu baax lu ma la wax. parce que Aziz moo ko commencé te Aziz bu ñu ko commencé ñun ñu ngi si daara ja ñu ñëw fekk Aziz di ko def foofu. fekk ñun tàmbaligul ay ñaan ni tàmbali ay ñaan yàlla defal ñu xéewal yàlla defal ñu teraanga. moo tax Aziz moom ni ñu ko def si moom la ñuy roy parce que mooy suñu mag mooy suñu grand. boo gisee ma it ma jël man it li ma am yéene def ko foofu. Ah. ma jël lu tolloo cinquante millions et quelque def ko foofu si ay nag kese ak yeneen yeneen. Ah. te bu ñaan naa yàlla beneen déwén ma def lu ko ëpp foofu. kon nag yooyu man maa ko jënd maay comme li ma ko waxee da mel ni mooy sama première gàmb ma def gàmb bu bu bu toll noonu. parce comme li ma la ko waxee te wax dëgg yàlla def na sax affaire bi sax mm, des na. Ah. parce que lépp mat ba lépp des na loolu lépp ni ngi koy sant suñu Babacar si parce que moo suñu si rek ah. parce que comme li ma waxee Aziz moom moo ubbi bunt bi ah. ñun dañ siy roy murid moo tax tey boo demee boo demee ba tijaan yi di dem ba def comme ñi murid yi def. Uh-huh. Aziz moo ko def. Uh-huh. moo ko ubbi bunt bi. te bunt boobu nag maa ko sa ñaana yàlla na ko gën a mën. yàlla na ko gën a mën mooy Aziz njaay nit ku baax la parce que li mu def woon mënoon na ko def feneen. Uh-huh. lool sama xol seet na si te dañ koy rey ñu ngi si gannaawam. incha allah. Uh, tey uh, uh, imaam bi li mu seede ci yow. imaam bi li mu seede ak man comme lu ma la waxee imaam bi. Euh, wax dëgg yàlla imaam bi comme lu mu la ko waxee man maa tabax ja jumaa ji maa tabax euh, daara ji ba mu àgg jox ko caabi ji jox ko lépp jën ay ventilo ay mosquée jox ko ko moom lay seede noonu si man parce que dafa baax ngi gëstu jaara yi ndax xale yi ñooy mag ëllëg ñooy yor daara yeek ñooy imaam yeeg ñooy sang néew yi ñooy jullee néew yi kon dafa baax ñuy jàngal xale yi moo waral ma tabax jaaru boobu ba mu àgg jox ko xaar seen xaadim moo tax seen xaadim moom moo tax ma may sant noonu wante deful ma ko seen xaadim kese yàlla sunu borom naa ko defal. parce que ak xale yi nga xam ne asan parce que dama la wax euh, dafa am foo xam ne euh, état moo ko waroon def wante ma du ma xaar état man maa koy jël di ko def sama doole. parce que dang defar daara. dafa baax te daara boobu rek moo moo gën a ndaw si daara yi ma defar parce que am ba te daara yooyu bokkut ak sama daara daara bi nga xam ne trois milliards la muy jumaa bi école bi hôpital bi loolu sama mbir bopp la loolu budget bi loolu la ëpp na ko sax waaye loolu brisé ba moom la waan daara bi nga xam ne dama ko def daara boobu dama ko def pour jox ko benn koñ benn koñ pour xaarim di ko jàngale. moo waral mu def loolu te incha allah rabi am na oto boo xam ne sax ñu ngi koy wa defar ñu ngi koy waxaale am na oto boo xam ne incha allah bu ñu juboo jox na moom xaarim moom laa wax dama wuti oto bu la neex ba ñëw ma jënd ko am na benn oto boo xam ne bu ñu ko indi ñu ko waxtaanee bu jubee dañ ko koy jox. comme oto bu ma bu ma ko digoon. kon xaadim seen xaadim moom mooy dégg oto boobu ñu ngi si tànkam ñoo ngi ko lijjan jox ko ko pour fu mu mën a jàngee yóbbu daa euh, xale yi pour ñu wàcce kaamil ay yooy nga xam ne du ñu am problème oto. jox naa ko euh, lijjan euh, wax naa ko mu lijjan oto boobu incha allah dama koy fay incha allah. si Ablaye ñaanu alal. ñaanu xaas. lan mën a jox nit ki alal wërsëg yomb ko. alal lu ko mën a jox nit ki mooy ay mbir la rek. secret bi yàlla def naa xam nga ku ak li la yàlla mun loo. parce que am na ñoo xam ne comme am euh, États-Unis yi ñu waa États-Unis am na loo ko yàlla mënuloo. waa Russie ak yeneen yi parce que boo xoolee gis na ba si affaire bombe yi ak yooyu fu fuñ koy fuñ ko defaree loolu lépp ku nekk ak li la yàlla mënuloo. pourtant ñuy defar bombe yi di koy jaay ay milliards nañ siy gagné. ci wér kon alal ku nekk ak fi la yàlla di joxe nga nga mënuloo alal bi. Ah. man damaa yor secret boo xam ne képp koo xam ne ñëw nga ak man. nga ñàllum ma ma xool sa mbir mu méngoo ak lii juróom-ñeent buntu milliardaires yi nga xam moom lay ubbeeku. ma méngoo yow katuñal yow moom instant yi dañ lay ubbi bunt yi rek. yow ma da nga nekk milliardaire. loolu yàlla mënuloo ma ko. parce que boo nañ il faut xam ne milliardaire yombul li defal nit mu am alal parce que boo xoolee comme lu noo ko waxee milliard booy def benn affaire da nga koy isee sa bopp ba pare. boo ko isee sa bu doxee nga xam ne loolu loolu moom. koo ci ñaanal mu sotti parce que tey yàlla mooy maye te yàlla mooy yàlla mi nga xam ne amul ndey amul baay te juru ko juru kenn wallaahi moom kese mooy yàlla mooy mooy borom ji kook nag li mu yor jeexul bu la si tibbale ku mu si tibbal nga doyal kooku moo mun naa wax gannaaw yàlla ak yenent bi yàlla si si jëmbam jooju yàlla mooy jël wërsëgam jox ma ko ma koy séddale ay njabootu doomu aadama yi mooy chrétien beeg mooy jullit beek ñëpp am nañ ñu bëri yoon naa fa ay milliardaire mhm. parce que boo xoolee milliardaire comme lu ma ko waxee jullit bi. bu ma sañoon dañ gën a gën a nekk milliardaire par pour ñu gën a mën a parce que comme ni mu waxee ak sénégalais yi ak ñi nga xam ne moodu moodu yi ak faatu faatu yi ñoom ñëpp wax dëgg yàlla bari na ay tey ay ay ñoo am am bari naa si ay ay yoo xam ne ñëpp ay milliardaire te ku nekk li nga waroo ak man yaa ngi koy jox bu mu bëggee kër almadi ci sensé laa ko wax ni jënd ko jox ma ko. bu ma sox soxla GEL wala Mercedes bu gën a seer. wala Range bu gën a seer bu ma ko waxee nit ki da koy jox jox ma ko. lu ko waral xolam bi dafa sedd moo waral mu jël alal jooju ma ko jox. parce que tey dëgg. tey boo defalee nit ki mu am nekk milliardaire. kooku day dof si yow. parce que day fekk mel ni nit ki nga fekk ko si coono. fekk ko si jafe-jafe fekk ko si ay problème fekk ko si koo xam ne sax problème dépasse da ko doon am problème faju nga am nga yàlla def nga nga jox la secret boobu ba mu nekk milliardaire kooku loo bëgg si moom day am. wante dafa am ñoo xam ne dañuy dañuy dañuy café milliardaire. Ah. yombul de te yombul. dañu wax damaa yor ay milliards dama yor gis nga boo yore ay milliards da ngay jëfee ku yor milliards war a toog damaa yor milliard dama yor te doo ko jëfee loolu am man gëm ma loolu man li ma gëm mooy boo yore fekkee da nga yor ay milliards lii ëppro yi soxla demal nga jox leen ko. damaa yor milliard tabaxal juma. damaa yor ay milliards defal social. damaa yor ay milliards yo kon sa milliard jëruwul nga ko yor. yor ay milliards pare nga gis néew dool yi di sonn. kon que sa milliard milliard moom essan milliard bi ak nga ñàkk yor milliard si lay yem. man dama jàpp ni nit ku nekk bu nekkee borom alal tubaab yi sax bu nekkee ay borom alal da ngay gis ñuy def ay social di dimbale nii. Mm-hmm. loolu mooy milliard. Mm-hmm. waa milliard si làmmiñ am na ñoo xam ne milliard si làmmiñ damaa yor milliard dama yor te bu boo ko waxee génne génne génne 500 millions wala 1 milliard ko génne kooku yoru dara. Mm-hmm. il faut ñu waxante dëgg ki yor mooy day jël ay 10 millions da ko yóbbu si hôpitaux ni ma defoon. Mhm. gisoon nga ko. waaw ci hôpital ba. waaw ah, joxe woon nga fa 10 millions. waaw ah. ku yor ay milliards dangay tabax daara jël si ay millions yu bari tabax daara joxe caabe ji. Mhm. doo laaj ban ndimbal. Mhm. ku yor ay milliards da fekk néew doole yi yi feebar. nga jëleen à charge fekk lu mu toll ay millions nga def ko si loo ma ay milliards. da ngay fexe gis koo xam ne yaa ko tane dimbali ko wuta ko ay place wala wuta ko leneen loo mooy ay milliards ku yor ay milliards dangay nangu génne borom milliard du nay képp ku nay rek xam yoroo dara ku yor sa xel dal na yow booy gën million 10 millions wala booy gën a 20 millions wala booy gën a 30 millions wala booy gën a du la wàññi dara moom ak ak nga sànni ko moom moom la nga yamle waa damaa yor ay milliards bu la laajee nga ni non sa yoruñ des na. man kii ma gëm mooy ko yor milliard day def ni comme Yérim Sow def. dëgg la <laughs> kooku moo yor milliard. waaw loolu mooy ay milliards. wala nga def ni Cheikh Amar def. Uh-huh. wala nga def si keneen ki nu def mu ni mooy euh, euh, kii nu tudd sax euh, baar kii hmm, Yérim Sow. keneen ki la sëriñ buub sëriñ buub wala Baba Diaw. wala ñeneen loolu mooy ay milliards. Uh-huh. danga xëy na seen social xëy na ñu ngi koy def xëy na ñun ñi du gis ñu ko wala lool. waa wante waa créer emploi yi ñuy def rek. di leen liggéeyloo di leen fay lool rek xëy na lool rek social la. loolu mooy ay milliards. waa milliards si làmmiñ lool du dara. day mel ni comme ni ma la ko waxee sax kuy woddoo sa làmmiñ rek. solo waa kay kon nit ki li ngay wax bu fekkee yàlla dala ko dënk xam nga état. Macky Sall dafa yor ay milliards moo tax fu mu neex def fa péage. parce que digg na nu ay péage. si Touba woon nee dina ko def te loolu kontaan naa si. bu ko defee de wax dëgg yàlla dinaa dinaa ko ñaanal bu baax. péage bii mu wax da koy def Touba woon. bu ko defee dinaa ko ñaanal man. bu ko defee koo fal 2024. ah xaw ma dinaa ko fal waat dinaa ko ñaanal. ñaan nag lépp xañ si. mu ko ñaan mu falu mu koo ñaan mu am leneen lu gën falu. Uh-huh. parce que falu du falu du teraanga kese. fallu du teraan kese nit ki mën nga ko ñaanal mu am lu raw président tey man am na fu may toll man ma nekk président yoon naa alal yoon naa teraanga yoon naa milliard yoon naa wërsëg yoon naa lépp lan laay doyee président coono kese la nit ki booy booy ñee fekk yàlla dalaa ñaa dalaa dimbale nga yor sa looy suturaloo nga yor sa teraanga doo soxla poste man li may am ñi nekk si poste sax duñ ko am barke yeneen yàlla Muhammad li may li may par at bi li may jol si ay si si li may am si ay ay ay ay lu ëpp parce que par at rek ma dinaa dinaa am lu ëpp au milliard man. Ah. par at waaw par at il faut mu leer nga ni lu tax ni boole ko ma mu a garaam sur union. yooyu yëpp lu tax dañ ni dem ba bloqué ma parce que nit ki may ñaanal mu nekk peut-être États-Unis wala mu nekk France mu nekk Allemagne wala mu nekk Dubaï wala mu nekk fa da nga may yónnee ba ni bloqué ma parce que boo may yónnee par ay dix mille fekk ria ria ria sax bloqué nu ma wante dañ dañ ba essane ni dafa bëri mm-hmm. parce que ria ria rek dañ la yónnee lu toll ay ay ay ay parti lañ koy def mm-hmm. ay parti parce que du nangu xaalis bu bëri mu ne ay 3 millions 4 millions 5 benn jour nga defal beneen jour nga defal ko au mois bi rek ñaata la. day bëri. si kenn benn nit nga defal ko beneen nit nga defal ko fekk ñooñu nga ñaa ñooñu nga xam ne dañ lañ ko yónnee seen xol moo sedd si yow moo war nii la jox alal boobu. Mm-hmm. est ce que xam nga borom xol bu sedd. loo bëgg si moom def la te man damaa bëri ay milliardaires si réew mi. mooy ñoo xam ne ay sénégalais ñoo xam ne ay tubaab lan ñoo xam ne ay yeneen yeneen xeet la ba si gàmm yi gàmm bii ni nekk nii am naa fa ay milliardaires. Hmm. ñoo xam ne man maa gannaaw yàlla ne man maa leen ko ñaanal. maa tax ni doon ko. Hmm. kon milliard comme lu ma ko yombul wante koo fekk ni waa ay milliards damaa yor milliard wax ko mu dem tabax ay kër yu mag yoo xam ne ay xaalis la. <laughs> gis nga gis nga gis nga kii gis nga dañuy wax boo yoree xaalis mu sonal la. demal song ay batiment boo songee batiment rek ko képp koo xam ne day wax yoon naa xaalis dafa songul bâtiment bu songee ay batiment batiment aha mu doog a xam ne yoon na ay milliards. tabax te man maa ngi tabax sama kër yëpp. laal ma benn. benn benn benn lii nga sax euh, benn. pere à la banque ñoom sax ñoo may. ñoo may peser pour ma ma pour ma leb si ñoom pere ma ko non sama alal rek doy na ma. billaahi wallaahi wa kon comme lu ma waxee nit ki xam nga il faut ni gëm ni yàlla mooy maye. te may yàlla bokkul ak may nit. gis nga yàlla mooy maye te may yàlla bokkul ay nit yàlla bu la mayee rek nga doyal. nañ gom yàlla nga xam ne yàlla rek mooy joxe amul ku dul joxe ku dul yàlla sunu borom ku nekk nag sañ na yàlla mu ñaan yàlla may ko comme ni nga ñaane yàlla mu may la ku nekk dégg dafa am lu la yàlla di may wallaay wallaay xam nga tey musu musuloo ma ñaanlu da ngay jël sama émission rek nga yóbbu ma uh-huh. waaye bis dina ñëw ma issee ko si yow waaw moo tax ma dina am benn dem bis dina ñëw ma issee ko si yow parce que dama la wax nit ki lii xam sa xam-xam bu bu bu bu motee rek mhm. doo si ragal dara mhm. est ce que xam ma man damay ñaan nit ki ba mu gis ma doog a fay amul kenn koo xam ne fayeeku naa ko ah. waaw yow tey bu ma la ñaanal dama la ñaanal ba nga gis nga dëgg gis nga li ma la ñaanal alal bi ñëw na wërsëg bi ñëw mun na aha kon léegi ah dafa sa wareef comme ñëpp fayal waaw fayal. ñaan ba gis soo ko fay. doo ko fay te booy bis booy fay yow sax doo xaar sax ma wax la loolu. wante sa xol mooy sedd ba ngay yëkkati ay. billaahi walla wa taalaahi li may jox ci alal dafa bëri. ci koo xam ne xolam dafa sedd. Mm. est-ce que am na am na koo xam ne damay lay ñaanal sa xol day sedd ba ñuy jooy si téléphone ba ay man damay mujj rus. ma ko non non jaru ko ñoo ko bokk. parce que yàlla mooy dogal moo waxoon di ma gis si internet bi ba ma ñaanal la nga gis. yàlla mooy def lool kon loolu sa wërsëg la yaata yàlla moo ko jàllale si seen ablaay Faye wërsëg kenn yàlla du nekk fu mu nekk jox la ko direct da koy jaare sa ay loxo ay loxo ay loxo ay loxo ba nga jot si kon yàlla mooy maye ya yaa ngi naan kafe de café dafa neex na <laughs> dafa saf mais Ablaye euh, café gi loo ci def parce que euh, lii dafa mel ne baatin rax na ci tamit café gi comme ni ma ko waxee maanaam café il faut ñi nga xam ne dafa nekk si nawet bi mhm. boo bañee feebar da nga jël kafe def si lingom. ci lingom. jëlal lii sëriñ bi daf koy maye gratuit. moo koy maye boo bañee feebar da nga jël café chaque jour nga koy naan kafe ak lingom Nescafé ak lingom. nga def si nga nga def ko wan boo ko boo ko paree da nga si ñaan falaxe naa si aytu kursi yi nga siy def. nga naan ko. sakk matee sakk guddi wala sakk heure boo lee billaa wallaay feebar du la yab li ngoom ku ko utiliser rek la utiliser dëgg dëgg nga ko utiliser boo feebaree da leneen la wante du du du du lii wallaahi wante leneen la soog la wala wante moo tax man moom rek abal ma moom rek ngay gis may naan moom rek man dose bi rek abal ma affaire bi boobu rek ngay gis may naan foo fekk foo ma fekk. Uh-huh. Nescafé ak lingum rek leen may defar. lii nit ku stable noble piir moo ko xam. man moom rek lingum ak ak Nescafé. Uh-huh. laay boole di ko naan. Uh-huh. boo ko defee benn feebar du la dal. wax ma du diire wante. feebar grippe yooyu feebar yii. du leen boo ko iti boo koy lekk naan moom. doo loolu man man maa ko moo tax yow yaa gis naa ni yaa ngi koy naan rek. ah damaa tooy euh, mais si Ablaye. Mhm. Euh, ku bëgg kaaraange gu wóor ku bëgg lu ko aar. xam nga est-ce que xam nga nii dafa am galaaj yoo xam ne. Mhm. moo tax nit ku nekk dafa moytu di jël galaaj yooyu est yoo xam ne instant nii yoo xam ne. Mhm. nit bu la waxee lu bon sax jëw la lu bon sax day ko passé kawam. waaw ah, dafa am galaaj yoo xam ne wax ma nag nga ni da pexe euh, Ablaye Faye wala damay pexe dëgg daaj nii. fexe ma añaan ko soxore ko ba dinaa ko rey wala dinaa ko fexe wala dina ko tuumal wala dinaa ko tëjlu. gis na dàll càmmooñ yii. Uh-huh. boo si defee juróom-ñaar puso. def si xeer tiim. yaa ngi dégg nu wax. Uh-huh. def si xeer tiim. def si ndox géej. Uh-huh. ndox teen. waaw. Ah? ndox taw. nga boole ko si. nga ñaan ci fallaxee naa si arti kursi yu nga sang ko képp ku lay pexeel. xam nga daal jàmm jubul. képp ku lay pexeel. billaahi wala wa lu mu muntu bon bon bon dina day ko passé comme far force bu bëggee wér dina la woo téléphone wax ah seen diw man maa la tooñ maa la liggéeyoon si diw baal ma seen diw maa la toog di yàq sa der baal ma seen diw maa la tooñ maa la doon pexeel baal ma liggéey li na def yëpp mën naa ko def baal ma parce que day ko passé comme du xool day dem ba moom si boppam xelam da koy may ah, diw ma laal de moo ma yóbbee lii kon il faut ma dem baalu ko waa boo ko bu la bu la baalo boo ko baale mu wér loolu mooy galaajam bu la liggéeyee mu ko passé comme bu la baalo mu wér bu la baalu moom si lay nekk rek di togg yaram bi oh. waaw parce que dafa am nit kilifa bu nekk boo bëggee mat kilifa dëgg-dëgg moo nekk nag président wala ma nekk nag xalifa général da ngay def sa yaram loo xam ne képp ku la laa laa laalaaki loolu mooy galaaj que kilifa diine yi dañ leen liggéey ñoom ñëpp dañ leen liggéey pour donne seen place yi ak président yëpp amul benn place boo xam ne da nga fa nekk di dund liggéey ñun sax di liñ liggéey parce que dañ lay siis ak iñaan iñaan dafa doy waar gis nga imaam bi ni rey ki ki doon rey ki doon defal jumaa jooj ñi fekk fa rey ko fa për lan moo ko fa yóbbu iñaan xam nga est-ce xam nga ni iñaan wate yàlla nag du jubal pexe iñaan parce que yow te bu mu la iñaane man dama lay pexeel faa yàlla koppalal lu bon parce que ñooñu ñu ko rey yëpp kaso la ñuy deewee. dootuñu génne am 60 ans da nga am 100 ans ci kaso. loolu moo tax moo tax ki ngay iñaane après yow rey nga ko wante moom xëy na yàlla parce que da doon tabax juma jàkka xëy na yàlla mën na ko tabaxal jàkka ba mu doon tabax yéene boobu yàlla dugal ko si biir aljanna yow nag boo deewee sax yàlla mën na la dugal safara. ñooñu dootuñu génne. wax ma rek dañuy am dañuy am dañuy am naqaret aduna am naqaret laaxira te ki ngi ni rey moom yaa ngi gis defal na wet gi école. juma la doon defal kook day liggéeyee diine. Uh-huh. kooku da mel ni euh, xarab xarab euh, kii sax mooy. wa waa xarab badal ngay dem di di di di lii far nga faatu si kooku aljana la jëm. kon kooku aljana uh-huh. ko ñaalee aljana la jëm si kattun yàlla bu ko ñaalu aljana la jëm parce que dafa doon tabax néegu yàlla. Uh-huh. pour mu jaamu si yàlla fan fekk fa faat bakkanam kooku moom comme lu mu la koy wante ñi nga xam ñoo ko rey problème bi foofu la parce que ñooñ ñoo bokk ci seytaane reykat nit foo fekk reykat nit moytu ko baaxul nit ku jullite bu am xol bu rafet doo rey nit wallaay sa xol bu rafetee est-ce que xam nga man mii sax man man mun maa est-ce que xam sarax yi may def si émission du man maa koy rey hmm? bu ma def sarax nag wala ma def xar mun ma koo rey dama koy jox ay nit fay leen ni reyal ma ko parce que mun maa tiim lool di ko rey métit booba may xalaat de nu mu méttee kon lii mun ma ko teg sa mala xëy na mun ta ñàkk parce que bay ma yi danga ko yàlla da koo def pour ñun teraanga la wante man maa amul xol pour tiime ko di ko rey nit ku nekk dafa war a am digganteem ak yàlla suñu borom surtout yow nit ki sax wax rey nit sax dafa ëpp mhm. waaw dafa am ñoo xam ne dañuy wax ni xam nga vulgaire xam nga vulgaire mooy gaynde yi gaynde am xam nga yenn saa dina gis gaynde boo xam ne wala xaj xaj xaj si biir famille xaj xaj xaj yi jëkk jékki say. waaw xaj say bu jékki-jékki day gis day bëgg rey moroom ja wala mu rey ku mu gis mu rey ko. xaj bu say dañ lay rey. moo tax nit bu bu demee bay rey nit rek dañ koy rey. dañ koy ko reyul day màgg. day nekk si xol mi chaque jour nekk si deret bi bu rëyu nit du nekk si jàmm. lool nit day am ay fa ba si am na si jën yi. jën yi dañuy am ñu am jën yoo xam ne dañ jëkk dëgg matt matt benn jën bi ray ko wala am ñu lekkante wala loolu loolu nu mu amee si jën yi ak mala yi loolu lay amee si nit ñi wante dafa baax si nit ki bu demee bay rey nit ki buñ ko tëj dañ ko rey parce que lool mu rey nit ki lool mooy màggale si xol bi bu mun na dem reyaat keneen yàlla lu mu digle rek am na lu tax yàlla bu la teree sàngara xam ne sàngara day yàq yaram te dalay day takkale ko sa xel mun nga def lu bon yàlla bu teree bu la teree drogue baaxul parce que day yàq sa di est-ce que xam nga nii ñi nga xam dañuy tux di naan sàngara di tux pour ñu tekki sa problème la parce que yàlla dafa bëgg bu lay jox loolu di nga di nga tekki wante xam nga tey américain yi ñoom ñooy utiliser loolu dinañ tekki waan seen tekki du du mujj fenn. ay ay at lay lay doon lu mel ni bu ma laajee mel ni mosuñu yor dara lan ma ko waral parce que alal alal munta ànd yenn yi. comme dorogu yàmba yeneen yi sàngara. parce que day gàttal fan encore. am na yi yeneen xewal léegi xam nga ma doom yi naan encore. ak tra bi. loolu lépp lépp ku koy def xam nga mun mënoo wax nit ki dëgg mënoo wax ma dama gudd bu gudd fan. yow ngay xañ sa bopp gudd fan. parce que yooyu yëpp yoo xam ne yëpp bu nekkee sa biir yaram da nga yàq nga ne après da nga bëgg gudd fan. si saa tamit. ah man gis jigéen yoo xamante ku leen andil may gu njëkk si koy jëndee. moo tax ma loolu pour nga gudd fan du yomb. Uh-huh. ku bëgg gudd fan yenn yi da koy tere li yàlla tere da nga koy mbaam xuux ku koy lekk gis nga après lu muy indi te yàlla da koo tere. sàngaral noonu ak fa yooyu après yooyu yëpp nag nga koy utiliser nga bëgg gudd fan mënut a nekk. ba si tux cigarette yi nu muy rey si ay doomu aadama dafa bëri. yooyu yëpp ku ko pour nga gudd fan du yomb yàlla moo yor ruux ne wante sa ruux ak sa yaram ak sa organe da nga ko war a defar parce que organe yi yaram yaay dem bay yàqu yëngu yow organe yaram bu yàqoo comme oto buy paan rek. organe yëpp bu yàqoo oto bi du daw. léegi nag nga bëgg oto bi daw te sa organe baaxul nga bëgg gudd fant sa organe yi baaxul il faut ne arrêté loolu. kon nit yi nit bu bëggee comme lu ma ko waxee nit bu buggee aljana dangay liggéey nooy defee ba am aljana. nit parce que booy jaamu yàlla sax. bu boo gisee ngay julli di woor di saraxe di def lu baax lan nga bëgg ah, yàlla dugal la aljana kon nit bu bëggee dara day def dara am na ñoo xam ne dañuy wax du ma def dara parce que maare yi dañ lekk sama xaaj da ngay làmbatu ba keroog nga daje li nga bëgg parce que ku bëgg adduna moom ku bëgg dara moom da def dara ku defu dara doo am dara. est-ce dara jooju waralul tamit euh, coow Cheikh Bara Ndiaye parce que audio yi génn na euh, coow li tàmbalee ñu ne audio yi montage moom mu génn leeral ne audio yi di montage. baatam la moom la waaye audio yi dafa mel ne yàgg na jamono jooju àndul ak Sonko wax na nag ba tudd facture euh, facture euh, cent mille facture ba nag juraat na coow loo xamante ni euh, nit ku nekk ak gëmukaayam tamit. waaw factures yi xam nga mën naa ko man du ma koo tuuti wante parce que man dama yenn saa dama am ay factures yoo xam ne ay 100000 waaw yooyu moom côté yooyu la. ay 100000 90 waaw 70 xëy na loolu moom wax dëgg yàlla man damay dal. facture ndox. waaw man damay dal man. Ah. ba si bi ma mujj fay rek lool la ay quatre-vingt-dix cent mille wala ay cent nangam loolu moom damay dal moom. woo naa leen ñoom itu amu fayit waa xool naa woo naa benn premier xool naa amu benn fayit. Hmm. loolu moom damay dal wante neuf cent mille moom mosuma fa àgg moom ay cinq cent moom mosuma fa àgg. loolu moom dafa bëri. deuxième bi comme noonu gis nga kilifa euh, balaa ngaa faral nit ki da nga xool jikkoom ba pare. Hmm. wala balaa nga xas nit ki dangay xool jikkoom a pare. moom si boppam balaa moo xas ci Sonko ba mu koy xas nee na faru am affaire bi Sénégal du farloo moo fi nekk. xam nga lan moo fi nekk. dëgg. farfarloo amu fi de. Mhm. par damay faral Sonko ndax bu bu bu amee post mu mu mu mu mu jox mhm. loolu yëpp naa fekk la. kon eh, kon askan bi taxuloo loo jug sa intérêt moo la taxaw jug. Mhm. est xam nga ni. yenn saa yi dangay topp da ngay topp askan bi lu la neex ba yàlla jox la lu raw sax loo loo yaakaaroon foofu parce que li ngay def mu nekk sa dëgg loolu ala kulli addi lay fekk si. Mm-hmm. gis nga fekkee da ngaa da damay xeex sénégalais yi wala damay xeex Macky Sall wala damay xeex pour post boobu boobu boobu sax amaan na sax boo demee ba kook gañe sax du la jox poste boobu. da ngay yàqoo da ngay yàqoo parce que ko woon. Mhm. nit ki li ngay gëm dangay ngay parce tey bu muy xas Sonko man war woon teel a xas. Mhm. waroon na dem xoolal Sonko ban zaar nit la. Mhm. ba ba ban la ma doog a xas. bu muy xas Macky Sall loolu encore parce que nguur pour nguur yombul nga dindi ko si loxo kenn nga jox ko kenn yàlla moo ko fay jox. te Macky Sall yàlla moo ko fi teg erreur bu ko fi yàlla ji naroo jëlee rek da ko fi jëlee. kon baara moom si baara moom il faut muy def ndànk. li muy wax dëgg nit ñi dañ koy déglu de. waaye mu def ndànk. ndànk bi mooy. na xool li neex sénégalais yi. na xool li nga xam ne mooy arrangé sénégalais yi na xool mi nga xam moo moo jëmal askan bi kanam mu koy xeex. loolu boo si amee milliard boo si amee post da nga koo parce que da xeex. war fekkee da ngay xeex sa intérêt bopp. parce que nit ki bu bu fekkee yëpp looy def sa intérêt bopp rek bu yàggee dootoo am ci lu la bëgg loo ci bëgg. lu la neex. moo tax man wax dëgg yàlla waxtaanam dama koy déglu. benn côté mu wax lu jaar yoon. benn côté mu juum. waate nit ki warul toog di dal benn kilifa rek du ko dal di du ko dal dal dal carrément. nit ki mën nga wax lu la metti fekk doo ko dépassé. parce que Macky Sall kilifa la. Sonko kilifa la. wante Macky Sall sax moo gën a nekk Sonko kilifa parce que moom la nii Sénégal yi tànn. kon Sénégal kilifa kon Ousmane Sonko kilifa la wante nekku ko kilifa ñëpp. kilifa boppam la. Mhm. ak ñu mu àndal. Mhm. Macky Sall kilifa ñëpp la parce que moo fi nekk kilifa moo fi jiite ñëpp. Mhm. par lu mu wax waaw la wax lu mu wax déedéet déedéet la wax loolu mooy président. kon nit ki bu wax a ah, bu wax damay bëgg lii rek bay def leen lu ëpp ñoom ñëpp nga leen wala yamle wante comme lu ma nit ku nekk booy politique lu la neex mun nga wax. wan nga yamal sa wax. lu la neex mun nga def wala nga defal wante man mënuma ànd ak kii tey jóge kii tey ànd ak kii tey. déedéet man instant yi dañuy wax ciment benn yoon lay tooy. nit ki benn ciment benn kanam xaram kanam rek la war a yor. war a yor xaram kanam ñaar kanam muy naafeq bi ngay wone ak bi nekk sa biir du benn. du vie baaxul. double vie baaxul loolu naafeq la moo tax yàlla génn génn ko si axuraan naafeq baaxul mbaaxul naafeq mooy tey dëgg daaj bu ma ñëwee si yow ma ni ma yow yaa yow yaa baax. bu ma toogee si si kii ma ni ah dëgg daaj ak a bon. kooku dafa soof. dëgg am na nit ñu baax am na nit ñu gore si réew mi am na ñoo xam bu ñu xasee ba jàpp du ñu bàyyi. du alal moo tax ni bàyyi. du dara ja ma tax ni bàyyi du dara. am na ñoo xam ne nag nag ay naafeq lan. fu tooy rek di dem. noonu nag nañ si yàlla musal. nit da ngay gëm sa bopp. gis nga li nekk sa xol. est-ce que xam nga li nekk sa xol. mooy génne sa kanam. mënoo fexe pexe gis da ngaa bon. far force sa kanam da koy génne. fekk da ngaa baax far force sa kanam da koy génne parce que xol ak camera ñooy am bi mooy mooy xol bi mooy jël. li caméra bi filme li caméra bi filmé. Uh-huh. après da mooy génn si écran yi. kon li caméra bi filmé rek mooy feeñ. Uh-huh. kon li nekk sa xol rek mooy génn si sa kanam. Uh-huh. boo baaxee wallaay aji munoo fexe fexe fexe ba bon. boo bonee munoo fexe fexe ba baax. am tama loolu. parce que si xol bi la. boo bëggee baax. si sa xol ngay yar nga fexe man damay jéem a baax ba yàlla def nga baax boo bëggee bon nag xam nga ni ngay def ba bon waaye am na ñoo xam ne day mun nañ bon mun nañ bon fekk bon bi wax dëgg yàlla du seen sago dañ la ko def muy liggéey liggéey la ngay sàcc wala nga liggéey ngay naan dorog wala ngay dorog yi wala ngay yàmb am na ñoo xam ne dañ la koy def pour nga xam ne nekk loo tey waaw xam nga loolu lépp bokkul ak li nga xam ne yow yaa jël sa coobare bopp ma ne damay bon. isa ma laay nga dem sa mbir baax mun na la boole keneen sa mbir baax mun na jékki-jékki ngay xëy rek daje benn patron mu yóbbu la jox la poste mun na dal jëf leneen leneen affaire noonu la. est-ce que problème la wax. kon ñaan yàlla. nit ki lii boo amee si ay problème julli nga nga nga julli nga ñaan suñu boroom wante booy ñaan lu encore na nga bu ñaan lu bon. bu dem ngay ñaan lu bon. comme affaire formation wala affaire yeneen yi jaru nga koy def. baaxul mhm. boo amee ay problème am nga noo ko mën a lijjantee. lu dul di naan sàngara. Mhm. wala di di di di weddi yàlla parce que am na ñoo xam ne wax yàlla boo ma dañuy mën a ku xëccante yàlla da wax yàlla boo ma mayul lii duma du ma la jaamu. Mhm. fekk loolu ñu yàlla si si la koy jaamu. am na ñoo xam dañuy dem nekk formation am na ñoo xam dañuy nekk dëkk leneen pour am alal. am alal mu ngi ko am te wax dëggal ni nga koy amee day lew te day baax te nga mën gis jaamu yàlla te bëgg na àdduna wax dëgg yàlla mu fekk si la parce que àdduna moom boo dund di nga dee. kon li may ñaana réew mi mooy réew mi nit ñëpp benn lan nañ te jàmm. nañ yéenante jàmm di yërmante suñu biir. di jàppale suñu biir di bañ a looy tàggatoo ak looy wax wi lay suivre ci MPROD TV. li may tàggatoo mooy ñi ñëpp benn la rek. ñëpp ay jullit la rek. te jullit da ngay def yëfu jullit. te bàyyi xol soxor yi. iñaan bi bari na. soxor bi bari na. seen bi kii tabax jumaa li ko yóbbee lépp billaahi soxor rek ak iñaan. wante li muy daj man maa ngi daj lu ko raw. wante damay muñ xam yàlla rek mooy buur. fii lu dul yàlla neen la. ganaaru kenn neenu ko. wallaahi am na ko ko wax. lu lu wér la wax. Mhm. fii yàlla rek moo fi nekk. Mhm. boo gëmee yàlla loo darul ragal dalul tiit. Mhm. boo gëmee est-ce que xam nga ne yàlla dalay may xam-xam sax bis bi ngay dee sax da nga koy xam. sax moo am na ñoo xam ne dañuy dem ba xam sa bis bu génn àdduna. loolu lan moo ko waral wala bu ñu génn àdduna sax du ñu du ñu yëg métit lépp xol bi sell la. am na ñoo xam bu ñu dee dañ jëkk rek nelaw xol bi sell. gis nga sa xol bu sellee. billaahi wallaahi boo dee sax doo ko yëg. wante sa xol bu bonee booy dee sax di nga sukkuraat weer te doo tax nga dee. moo tax gis nga yàlla yàlla fawul. te yàlla lu mu digle moo am. billaahi wallaahi sa xol bu rafetee nga am jullit nga am yërmande barke yéen a yàlla booy dee sax da ngay da ngay da ngay dégg sedd. doo dee dee métit waat boo bonee soxor. faala ala kulli aal ba balaa ngaa dee di nga si mooy ñi nga xam dañuy rey nit nii di def lu bon rek sax su guddee bëccëg bon rek. Mhm. buñ génn àdduna da nga leen yërëm. nit lay xañ rek sa àdduna yàqu. wallaahi mhm. kon dañuy rafetal xol yi. Mhm. nit ki lu amul nit ku nekk amul lu du xolam xol yi bu rafetee lépp rafet. wante tey dëgg bu ma bëggee xool si lu ñaaw lu ñaaw rek laay xool laay gis. bu ma gis bëggee gis lu lu rafet lu rafet laa gis kon lu àdduna noonu la rek nan yéen te jàmm àdduna àdduna àdduna dara desu fi lépp day jeex alal beeg milliards yeeg wërsëg lépp day jeex nañ rafetal xol yi rek moo fi am solo loolu laay tàggatoo wasalaam ayto mbokk yi dégg ngeen waxtaan wu am solo bi sëriñ Abdoulaye Faye waxtaan mu nekk waxtaan woo xamante ni njariñ la nekk waxtaan woo xamante ni ngëneel la ñu fekkoon ko fii ci résidence bi nga xamante ni mooy dëkkuwaay bi fii ci Almadies